الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد والصلاة والسلام على سيد كل والد وما ولد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أبدا إذا نريد أن نتحدث شيئا في تريحة البحر من النار إلى النكار ginnaaw bu nu santee buur bi azza wa jalla ñoo ngi julli ci xayrul xalqi sayyidina muhammad sallallahu alayhi tey sant xaadimul xayrul xalqi mawlaana cheikh ahmad bamba xaadim rasul tey ñaanal sëriñ muntaxa al ko fi loolu mu ànd ak nuyu di sant di ñaanal sunu sunu wasila Serigne Khadim ngay Gaydel mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon ñu bëgg a barkeelu lenn ci yoonu géej gi li ko dalee ndar ba ndakaaru moom Mawlaana Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ba mu jógee Louga foofa la jëlee saxaar utali ndar ma nga dal kër Ahmad Khouraychi sëriñ bi nee na foofa suñu boroom sëriñ bi nee na foofa fa la nekk la nga xamante ni moo des ci safar ak rabiihul awal nee na foofa sunu borom may na ko fa ay may yoo xamante ni ba lislaam taxawee ak léegi dootu ko may kenn nee na fa la àggalee xasid ak asmaawul ahlul badri sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na foofa noonu ca la waxee ni wala axtaytu fii tilkal muddati fii tilkal jazirati maa laa ashkuruhu abadan taadduban maha xayri mashhuri zalika tarbiyu xayi lazi la yamutu nee na ca il boobu di Ndar jànkonteel na fa ay tartar yoo xamante du ko mës a nettali ab jaam ngir ay teggin yu dox ci digganteem ak boroomam ci jamono yooyu nag ci lañ nekkoon di xalaat nan na ñuy de sëriñ bi ñii ne nañ ko rey ñii ne nañ ko génne ñii ne nañ ko tëj génne googu nag moo dëkkoo ak lim bëggoon ak li yàlla bëggoon ak li nga xamante ni moo doxoon digganteem ak rasulillahi képp ku nekkoon ci sëriñ ci jamono yooyu nag woo nan la ku nu fa woon rek woote woo wala yëguñu ne woon ni sax ab sëriñ la ñett ñami woo njëkk a woo ca biro ba ca danoo seede ni yàlla rek mooy buur ñu jël leen tàbbal leen ca gaynde ga mu daal leen jëfandikoo waaye ba ñu agsee ci numéro 4 mooy ki sëriñ Xaadim loo gay dal wax ni wa joxti wa xiyal loxoo bi xidmati xubban lahu wa abtahi ridaahu mahar ridan muhaddami moom Mawlana Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul keroog la samp xalimaam ne xul huwallaahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad seede ni yàlla rek moom mooy buur ba ñu ko jëlee boole ko ak gaynde gi gaynde ga daa waax ba mel ni xar mu gis boroomam ba mu ba ñu daal koy laaj ana def ak gaynde gi mu ne leen wa man takun bi rasulillahi nusratahu in talkul usda fii anjamiha talimi mu ne képp ku nekk rasulillahi gaynde gu la gisee day mel ni xar mu gis boroomam moo tax sëriñ Xaadim Lo Gaydel wax ni ko yaa génne islaam ci am noot ndar de yaa daan islaam bu doon garab yaa tax tey mu xëy ami reen na ndar bisub alxamis di ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru gàmmu yegg na ndakaaru laataa timis di jot fekk daa wooroon fa lañ ko jëlee taabal ko ci néeg bu xat néeg bu lëndëm nee na keroog ba mu nee tegg tànkam ràbb ga dafa sar ba génn ca kaw waaye nee na ndeyam ja soxna jaara fekk na ko fa di ko ñaax ak di ko dolli ay dëgër laay ne ko man rek may sa seede ndax keroog ba nga gi keroog ba nga feeñee jamono nga yëkkati sa loxo ndeyjoor ne yàlla danaa la jaam lu la kenn mës ta jaam yëkkati sa loxo càmmoñ ne yeneen ci bi danaa la liggéeyam lula ken master liggéeyam mu ne ko doxalitenga dem gisagoo dara ginnaaw loolu allah ca xew lépp ca luñ ko jël yóbbu ko ca bato ba nee na keroog ay muritam yu baree bari fekk nañ ko fa ku ci mel ni maam cheikh ibrahima fall ak sëñ ma ndumbe xabbaan mu daal di dénk sëñ ma ndumbe xabbaan ne ko dem leen maa ngi dem maa ngi ñëw dénk naa leen ku mot a dénk li ma leen dénk fii ak muy ñëw bant sax du du ci damm mhm. nee na keroog ba mu ne tegg tànkam ca bato ba ca la ko yàlla takkalee garaatu xaadim rasul moo tax sëriñ xaadim loo ngay dal wax ne xaadim rasul nekkul tur garaat la ca la waxee ni alama ni rahmaanu fii safina bi an na ni xaddimu zil madina waaxiru daawaana ani